octobre solo bu am solo ah solo boo xam ne vraiment bu bu rëy la te loolu du Sénégal rek ci àdduna bi yëpp dañuy célébrer octobre jagle ko femmes yi jigéen ñi pour mën leen a saytu ci lépp lu nga xam ne mooy cancer. cancer particulièrement bu ween bi mais aussi cancer ci buntu buntu njurukaay bi nga xam ne dafay indi problème yu bari ci jigéen ñi. donc loolu moo tax ministère de la santé avant octobre toujours dafay instruire dafay demander en tout cas euh, structure sanitaire yi ñu utiliser mois boobu pour vraiment communiquer sur ça mais aussi permettre aux femmes d'accéder très facilement plus facilement même laay wax aux structures sanitaires pour que ñu mën leen sensibiliser dépister leen ci ci cancer yooyu muy particulièrement cancer bu kol ak cancer du euh, du sein cancer def dépistage bi foofu la njëriñ li yëpp nekk ndax ñaari cancer yooyu heureusement que mën nañ leen a saytu seet leen avant lu yàgg muy am waaw ndaxte dafay def ay mandarga yoo xam ne balaa mu yegg ci cancer mandarga yooyu mën nañ ko seet gis ko ba pare faj ko ba nga xam ne du yegg ci cancer donc loolu loolu c'est très important moo tax ñu bëgg vraiment euh, gën a ñaax population yi ñuy ñëw seet seen bopp balaa ñu yegg ci cancer ndax buñ ci yeggee parfois dina gën a metti ci faj bi dina gën a cher aussi faj bi ba pare li nga xam ne moo ci am problème ci ci jigéen gi dina gën a bari mooy rek saytu bi ndax euh, gis nañ ne cancer du col doomu jàngoro bi koy bi koy indi mën nañ ko euh, éviter balaa muy yegg ci ci xale yi dañuy sensibiliser ci xale yi donc pour que déjà ñu xool ni ñuy comporté woo ëllëg si biir balaa ñuy nekk mag ba pare mën nañ leen a vacciner ba nga xam ne doomu jàngoro boobu ëllëgi si biir bu ñëwee ci ñoom du indi problème donc xale yi nga xam ne ay jigéen lañ am juróom-ñeent ba fukki at ñeent mën nañ leen vacciner au Sénégal pour le moment loolu mooy stratégie bi ñu vacciner xale yi jigéen yi 9 ba 14 ans te vaccination boobu am na fépp ñun tey ji dinañ ko defal xale yi ñëw fii yëpp am na ay xale yu fi nekk yu seen yaay indi ak seen parent yi mais bu tey sax heure boo demee ci poste de santé boo mënti dem ci Sénégal comme niñ koy defee ci yeneen vaccination yi vaccin boobu disponible na ba pare amul luñ koy luñ ci fay c'est gratuit. na ci waxtaan ak ak njaboot gi di ci waxtaan di ci communiqué ku ñëw fii tamit même bu fekkee ne loolu andiwu la sax leneen moo la andi da ëmb wala da ngaa am beneen problème dinañ fexe tout ba waxtaan ci ak yow. laaj la ba xam ndax kër ga am bàyyi woo fa ay tuut tànk yoo xam ne jigéen lañ am nañ juróom ba fukki at ak ñeent. bu nekkee am na ñu wax la ne ah demal nga vacciner leen loolu vraiment aujourd'hui loolu daal bokk na ci stratégie ñi gën a utiliser waxtaan bi sensibiliser wax wax wax il faut ñuy wax lu bare bari bare waaw ci presse bi ak feneen ak feneen te yéen aussi vraiment ñu ngi leen di ñaax tamit ngeen jàppale ñu gën ñu jàppale ci communication boobu pour que mu yegg ci ménage yi gën a sori ci Sénégal pas seulement dans les villes mais aussi dans les coins le plus reculés ndax tey jii loolu fépp foo nekk mën nga ko faa def sans problème je crois que état def na lu bëri bëri déjà ci en tout cas dimbali population yi fépp fu ñu nekk ñu mën a accéder à la prise en charge waaw mammographie yi ci weer bi aussi état bi dafay laaj dafay wax structure ne nañu wàññi lu ñu gën a mën a wàññi nañ ko wàññi waaw ba nga xam ne jigéen ñëpp ku nekk loo am rek di nga ci mën a euh, dem def ci li nga war a def lu ñëpp ñoo soxla mammographie mais ñi ko soxla ci weer bi bu ñu demee ci structure sanitaire yi dinañ leen ko wàññil juróomi junni ba ñetti junni donc loolu ndimbal la am na aussi suñu partenaire yoo xam ne dañuy ñëw fayal jigéen ñi ñetti junni yooyu ci des dañ koy fay ba nga xam ne dootul nekkati euh, dara ci ci ku jigéen gi loolu aussi am na ci mois bi donc vraiment moo tax ñu ci euh, profiter pour ñaax jigéen ñi ñu ñëw ñu seet leen ku ci war a def mammographie nañ la ko bindal di nga ko mën a def ci coût bu gën a tuuti ku ci war a def aussi euh, dépistage pour affaire cancer bu njurukaay bi ñu defal la ko gratuitement boobu moom c'est gratuit waaw bu ñu la koy defal amul benn problème c'est gratuit te bu nekkee gis nañ ci loo xam ne dañ ko war a faj aussi faj bi tamit cherut ñu ngi ci démb rek am na ay techniciens yu nekkoon fii ci hôpital bi pour régler ko je crois que avant octobre bi di jeex dinañ ko mën a utiliser d'ailleurs sax am na ay bons yoo xam ne déjà administration bi jox nañu ko pour que ñu éventuellement distribuer ko jigéen ñi nga xam dañ ko soxla pour que après ñu ñëw mën a def seen mammographie. bare na bare ndax ndax xeex bi du ñun rek xeex bi ñëpp lañ ciy woo te je pense que kuy doomu cees rek war nga cee mën a jàpp aussi waaw ñun moom ñu ngi ci mais ku ñu ci jàppale ñu jël. waaw te je crois que cees aussi ñàkkul peut-être ñu am moyen ñoo xam ne mën nañ jàppale jigéen ñi ndax bu ñu ko defalee hôpital bi jigéen ñi lañ ko defal te jigéen ñi jigéenu Thiès lañ. donc vraiment ñu ngi ciy profiter pour euh, wax euh, waa Thiès yi képp ku mën a jàppale jigéen ñi war nga aussi def sa loxo ci xeex bi. tey de du mbiru jigéen kese góor ñi am nañ ci solo bu baax a baax a baax ndax góor ñi ñoom ñooy dox te xam naa ne information du leen rëcc déjà euh, ku ci am information dinañ ko delloo kër ga. ba pare nga ñaax sa ay jigéen ñu def li ñu war a def bu jaree sax nga yóbbu sa doom nga yóbbu ko du du mbiru jigéen ñi rek parce que buñ jigéen ñi feebaree. jigéen ñi ñooy am góor ñi ñooy am problème ndax yeneen ñi faj donc wax dëgg yàlla fag ni ñu koy waxee fagaru balaa moo gën faju ñëpp la war te ku nekk rek njaboot gi nga njabootee war ngaa def lépp ba nga xam ne di leen aar soo jotee information bi nga yóbbu ko fa nga ko war a yóbbu ci njaboot gi ba pare ñaax njaboot gi ñu ñëw hôpital waaw loolu daal moo si moo ciy waru garu góor ñi. docteur Lamine Gueye la gynécologue la damay yëngatu ci feebaru cancer yi ci loolu la sama xam ko màcc. Bon, par ailleurs aussi, je suis le président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital. Donc, benn activité la boo xamante ni nii service maternité daf koy mener à travers pour sa Marietou ñoom ñoo koy organiser depuis certain temps. L'idée mooy ñu gën a jege population bi pour waxtaan ak ñoom ci lan mooy cancer du sein et au-delà cancer du col aussi pour que ñu xam ko réellement ça c'est important pour que ñu xam ni ay cancer la yoo xamante ni dafa exister lu ñuy nier. et li gën mooy jigéen ñi teel a ñëw ñu teel leen a dépister boo déggee dépistage souvent léeg-léeg ma waxtaan ak jigéen ñi kenn ñëw ñu defal ko négatif mu ree mu mu crispé au départ après mu ree man ko pourquoi ñu ni parce que ñoom bu ñu déggee dépistage souvent dañu yaakaar cancer la attention dépistage foo déggee dépistage xamal ni normalement boo jëlee jigéen nga teg ko ngeen ko damay def dépistage di cancer amu fa parce que cancer bu fekkee dem na ba cancer boobu dépistage newut fa diagnostic lañ nekk dépistage mooy saytu ci population boo xam ne jàpp na ne ñii à la limite amuñu cancer mais am nañu peut-être ay risques ñu xool ñi nga xamante ni nii mën nañ ci développer cancer ñu jël leen en charge précocement donc bu ne dépistage nañu ñëw xam ne dépistage vraiment serait exceptionnel de trouver un cancer chez les femmes ñuy loolu mooy ci ëpp solo mooy dépistage bi. maintenant bu ñu rombee dépistage bi ñun duñu yem ci dépistage kese au niveau de la maternité on a la possibilité d'aller vers dépistage prise en charge de ces légions maanaam légion précancéreuses légions yu ndaw ndawaan yooyu nga xamante ni ëllëg mën na joxe cancer mën nañ ko jël en charge si par extraordinaire aussi ñu am cancer dañuy faj cancer yi fii au niveau de la maternité on les traite et là je vais m'arrêter un peu faj cancer dafay laaj teel a jóg faj cancer dafa laaj teel a jóg parce que quel que soit pays boo mën a dem boo toogee ba cancer bi avancé yenn avancé ba law sa yaram wax dëgg yàlla faj bi dootul yomb du ma nit duñ ko faj dinañ ci def li nga xamante ni moom la tolleel jamono jooju mais faj bi dootul yomb donc bu fekkente ni nii état bu dépistage bi daf leen a raw ñi nga xamante ni dañu gis loo xamante ni nii méngoo na ak cancer nañu teel a ñëw ñu jël leen en charge maintenant jël en charge bi dafa bëri ay volets am na chirurgie léeg-léeg am na chimiothérapie am na radiothérapie parfois sax mën na am ay hormonothérapie lu bëri la yàlla def na yooyu ci bëri en dehors radiothérapie am na Thiès donc euh, c'est une chance pour la population de savoir que ni faju cancer du sein depuis 2014 lu am fii la ci l'hôpital bi et ñu ngi ciy góorgóorlu même si nag. il faut la le reconnaître amaguñu li ñu bëgg dëgg li ñu bëgg mooy que malade teel a ñëw ñu teel leen jël en mais encore fois ñu ngi leen di ñaan ñuy teel a ñëw parce que ba fi may wax ak yoon nii ñu ngi yëngatu ci feebaru cancer depuis 2009 mais parfois dañuy am un pincement de cœur dañuy am lu ñu métti li ñu métti mooy que jigéen dañuy toog seen kër dem ba nga xamante ni nii à la limite famille bi amatuñ ci yaakaar ñu ñëw hôpital. bu boobaa aussi hôpital day def waru garam mais faj bi day métti. actuellement on a 128 patientes suivies pour cancer du col et du sein 128. Eh juróom-ñett actuellement donc ñu ngi leen di jël en charge fii hôpital bi xamante ni ku ci nekk ak fa mu toll aussi parce que quand il y a cancer et cancer cancer dañu bëri ay cancer ci biir donc. Euh, cancer du sein ay xeetu cancer la ci biir ay xeetu cancer yu bëri. évidemment évidemment am nañ satisfaction am na ci satisfaction bu baax a baax ñi nga xamante ni nii yàlla def na ñi ngi teel a ñëw ñi ngi ciy am satisfaction bu baax a baax wax dëgg yàlla ñi ngi dellu seen activité ñi ngi leen di remercier encore di leen ñaan ngeen continuer liggéey bi nii comme ça population bi yëpp dinañu am bénéfice ci li ñuy def parce que dañ fi nekkal population bi ngeen nekkal fi population bi euh,